للمصطفى نويت ما xayril man kitaabul abyad Amen. kaddu yu ñu yëkëti ci sa kanam waaye ci ndigalul sëriñ Aydara Mbàkke moom sëriñ daam mu boole kam rakkam sëriñ bake, Mbàkke ak sëriñ Xalil ak sëriñ bay Daam Mbàkke ak jëwrin yëpp noo ngi lay siyaar baax a baax a baax di la ñaanal gudd fan gu ànd ak wér sa xarit sa doom sab taalibe moo fi yónnee addiya li la ko jébal waaye te xeeb àddiya ji lool te bëggoon bu sañoon mu mu doon lu gën a fawxa waaye di sàkku nga ñaanal ko di sàkku tamit nga ñaanalal ko bokki taalibe yi ba yéene ji ñu am ci liggéeyal ko borom Daaru Muxti yàlla may leen kàttan nu mën koo def lii daal mooy kàddu yi jërul gudd ndax nun ngërëmal yàlla rek la ñuy sàkku te xam ne ni yéenay borom Daaru Muxti kon li ñuy li ñuy sàkku ci yéen mooy mën a liggéeyal sëriñ bi rek waaw mën a liggéeyal sëriñ bi rek loolu rek kay sunu yitte noo ngi lay siyaar bu baax nag te leen ñaanal gudd fan ku ànd ak wér tawfeex ku ànd ak taysiir ba lépp li nga xam ne naanal nga ko Cheikh Ibrahima Fati borom daaru yàlla may la kàttan nga yeggale ko te yeggale ko sa sago te lépp nu fekke ko te ànd kook yow barki borom daaru moti, sa dom dal sa xarit sa taalibe di sëriñ Aline Aydara Mbàkke nee na moom mi ngi mi ngi mi ngi taalibe rek waaw di di di di gën a yeesal ak taalibeem waaw di gën a jaayante tey déglu ndigal waaw fasut yéene dox ci lenn loo xamante ni bii noonu lu dëppoowut ak ndigal la kon nag loolu daal moo doon kàddu yi xam naa lu ci mat a dolli ko Serigne Xaasim Mbàkke mi nga xam ne mooy sunu jëwrin dana ko dana ko yegg yeggale waaye newoon na daal bu dikkee nañ la wax ne addi yaa ngi jaa ngi nii xeeb nañ ko lool waaye ñoo ngi sàkku nga ñaanal ko te ñaanal bokki taalibe yépp biir ñaan googu nag noo ngi jël lépp delloowaat la ko te bëgg nga yàgg fi lool te am wér ci barke maam Thierno na Faty waaw. wax ji kii moom mat mat na sëkk waaw moom euh, wax moom bu matee rek mat na waaw moom xanaa nga dolli ñaanal taalib bi bu baax a baax rek waaw ñu mu àndal di liggéeyal sëriñ bi nga dolli leen ñaanal bu baax a baax waaw ginnaaw ban la ñaanalee nga yàgg fi lool waa euh, say naal ak na li ñi def jiitu woon ak yëpp rek nga matalé ko barke sëñtu Tuubaa waaw ñu ngi la koy ñaanal bu baaxa baax waaw ndax xam ni moom sa yàgg fi mm. ñu top sa ginaaw di la liggéeyal loolu rek mooy suñu njariñ waaw ñu ngi lay ñaanal loolu nga yàgg fi ñaanal teel bi bu baax baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw mm-hmm. incha allah te ko dama koy ñaanal. ñu mm-hmm. bëgg ci boppam. ak li mu yéene ci mm-hmm. di sëriñam. Mm-hmm. borom daaru. mu def ko ci man noonu ko jaaroo mu yegg la. ñu ko bëggee rek fa mu bëgg mu yegg fa. moom moom ko daal def du tey yàgg na lool. te it réy na fi noonu lool wax dëgg yàlla. ndax taalib yi neex neex jëye ci sa njaboot moo ci dàq moom moo tax ñu sant ñaan ko bu baax a baax mu koy ñaanal yàlla defal ko lu koy njortu taalibe yi ko topp yëpp it yàlla dimbale leen jubal leen barkeel leen faj seeni aajo adduna ak seen seen faj ak aajo àllaxira te boole nu ci biir loolu ñu koy ñaanal nekk daal xol sedd mu ngi dellu daanaka loolu moom day na sëkk ndax ki ko jox am na pay te dana ko fay fayaale taali bi muy borom daal wala ki ko man mi nga xam ne man la ko jaarale ci bari sant naa ko lu jiitu tey waaw te cant yi day yokk bis bu ne yéen yi di ko nekk yéen ñi toog seere la. jërëjëf Mbacke jërëjëf ñaanal ko bu baax a baax rek. waaw am na yéen a liggéeyal la lool. boobu ak léegi. waaw bu doon loolu sax xari ñëw na bu yàgg waaye boobu ak léegi daal. mun ko indi rek mu ne mii tuuti na ci sëñ bi. waaw mun ko indi rek tuuti na. waaw am yéene lool. waaw ñaanal ko bu baax. daa mu ni yóbbu kër Baye Khalid. ak maam Thierno Dame. waaw waaw waaw waaw jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke Hey, la la la la la la Siapa Abendalo ko deg yali Seto bala ilaha illallah Muhammadul asalul ilah Cen khari ila Bismillah Mau bu seen xol sedd rek moom moom lépp lépp daal di baax moom. waaw nekk maamam noonu ci ñaan ci barke maamam daal. waaw li mu bëgg lépp ak doom bi mu àndal yàlla defal leen. amiin amiin Mbacke jërëjëf. jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf jërëjëf kay. waaw tàllal leen tàllal leen tàllal leen def leen. amiin amiin yàgg fi lool te wér. barke borom daal. parce que li naa jógee yëpp rek waaw. amiin amiin sagano dinga tàbbi àjjana asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ak sëñ xaas ak sëñ xaalit ak sëñ daam jëwriñ ak ñi nga àndal ci jëwriñ yi gannaaw buñ leen nuyoo ñoo ngi ñaan yéen jottali sunu nuyoo Cheikh Aliou Aïdara bu sëñ Dame Faty sunu nuyoo boo xam ne jaar na ci yéen jëm ci moom ak sunu cant ngoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut ab yem waay euh, ci jëf ji nga xam ne ñu ngi koy jëfal Cheikh Ibra Faty di am lu muy jaarale ci ñun te àddina bépp tekki seen bët té mu and ak yéene ndax lu mu jëfël lu ne lam nu yéene moo ko ëpp mm-hmm. te loolu xam nañ ko kon nag nuy ñaan ki tax muy def te umpulewut li muy def mm-hmm. muy Cheikh Ibra Fati mm-hmm. nuy ñaan ci jam ak dara jey ba juróom ba suñu borom may ko fanu gudd may ko ak wër ba lépp lu mu bëgg liggéeyal borom daaru muuti yàlla may ko kattan gu mu ko defee ya te mu ànd ko it ak taalibe yi nga xam ne ñoo topp ci gannaawam ànd ak moom ci liggéeyub Cheikh Ibra Faty bi ndax taalibe yi lépp lu ab sëriñ man taalibe yi ca lañu kon képp kuy ñaan war nga caa boole taalibe yi kon njaboot yi ne ci moom di nekk biir réew bitim réew ak lépp lu taq ci moom noo ngi ñaan ci dara yi Ceerno Ibrahim lépp lu waaye man ren bu déwee ne yàlla na la yàlla ak borom daaru may lu ko ëpp te yàlla may leen ak wér yàlla sàmm leen yàlla defal leen fan wu gudd suñu xol sedd na sedd koo xam ne suñu lammiñ mënu koo laal démb tey jëkk a dikk ndax waxtu ne soo geesoo gis jëfam kon loola buñ nee yéene na kon jëf ja wane na ko ndax wax lu bari bari jëf da ko ëpp doole lu wax bari bari jëf a ëpp doole te jëfi sañ ay dara ku geesu gis ko kon nag loola sun xol sedd na ci xolob ñi nga xam ne taq nañ ci nun sedd na ci te àddina bépp gis na ko ndax jëf yi daanaka gëru répété àddina bépp xam na ko jëf ji mu mujjé defal bëkk dem dong ci sama dom jëf jojé jëf lu ju réerée Jo xam dara la ci defu dara la ci waxu lu ca war moko def lu ca war def moko ko ca def te it nanguwuma ko yëgal ba def ko ba nopi kon koku awma payam waaye ki am payam nag moy Cheikh Rafati mom lañ koy bolél kon nak cheikh ibrahim mi ko tax di def te umpale wut yalla nako borom daru sam sam njabot gi mu andal ba lu mu bëgg borom daru muti yalla may ko katan gum ko defee tam and ko ak yeen sun xol sedd ni guy ki tax def di wut tax umpule wut de loolu nga wax ci kóllëre gi dëgg la way juróom sunu màgg woon sunu sëriñ loola it xam na ko àddina bépp xam na ko waaye doxal na ko kon lu ca manqué ci man mii la waaye du ci moom kon nag baatin ba nga xam ne yàlla suñu borom defoon na ko ci tural turandóom muy sëñ daam Faati mi nga xam ne mooy magi borom daaru muuti yàlla na yàlla baawaa na loolu ci njabootu sëñ daam Faati gépp ndax Ahmadou Faati moo doon mag yi borom daaru muuti la ci sëñ Tuubaa waxoon loola doy na loolee Moussa Ka wax na sëñ Tuubaa waxoon ne moom bu dundoon kon kenn ko xam moo tax ñu lam ko ci biir kon batin boobee yàlla na ko yàlla sotti ci njabootu sëñ Daam Faati gépp te yàlla sàmm leen taalib yi yéen a ngi ci biir ndax lu ñu ñaanal sëñ Daam sëñ sëñ sëñ eh, ay dara ak njaboot gi yéen taalib yi yéen a ngi ci ndax ab sëriñ bu ñu ko dee tudd taalibe yi ca lañu mi ngi mel ni gubu dugub bu ñu nee gubu dugub pepp ma ca tax a tax mooy ab sëriñ waaye bu fekkee ne aw pepp taxu ci mhm. aw móot lay doon kon nag pepp mi ci boppam mooy taalibe yi kon nag yéen yàlla na leen yàlla sàmm mhm. yàlla na leen yàlla jàppale ba fu mu bëgg àgg rek yàlla suñu borom àggale ko fa te aar ko sàmm ko musal ko ak taalibe yi yëpp jërë ngeen jëf suñu xol dina guy jërë ngeen jëf yàgg fi lool ñaanal bu baax a baax rek. waaw am na yéene lool. waaw ca wax dëgg yàlla ñun ngeen ñaanal ñaanal na ko. waaw ndax ñii ñii njabootu Serigne yëpp nii lañu koy defal. Mm. xarum maam Thierno ngi nii bu fi jógee moom lañu koy yuti. Mm. muy man mi muy sëñ xalit muy sëñ xaalim ñëpp noonu la leen koy defalee. waaw yóbbul nañu sëñ sëñ Bassam mm. Tañam ak seen seen kii ba noppi waaw eh, am na. am na am na yéene lool daal. waaw am na yéene lool waaw am na yéene lool waaw. waaw ngeen nuyu ko bu baax te santal na ko ndax nit moom bu defee loo xam ne su ko deful woon mm-hmm. mënoo ko wax ne ko lu tax defoo ko mm-hmm. mandargam baax la mm-hmm. waaw ndax noo ci yem képp kon nag la nga xam ne moom lay def pas-pas ba tax mu di ko def ak ka tax mu di ko def yàlla gis na ko yàlla na ko ci gën a jàppale bu baax a ràññi nañ ko it bu baax nag ci taxawaay bi lii nga wax nii yaakaar naa ne ñi mu wokkal borom daaru amu ci fenn ab ab fu dul fu dul fu mu a dugg te loolu nag dara la lool loolu dara la yàlla nag mooy baaxee ab jaamam ci lu ko soob. mu koy mu koy mu koy dund. moom mi ko ko jagleel baaxe ko ko nag. dañ koy ñaan mu téyel ko ko. te yaakaar ji ñu ci am sunu boroom bu mu tas mukk. te mu sëñ Tuubaa taxawaay bi mu taxaw ci bokk yi itam. yaa ngi tudd sax njabootuk sëñ daam waaye jàpp naa ne. boo xoolee ci biir dëgg-dëgg xëy na. jege na ko. Mm. li gën a jege moom faw bët da koy. waaye eh, jàpp naa ne njaboot yëpp noonu lay dundanteeg ñoom. dëgg bu dee suñu wetuk bopp nag moom. loolu moom moom yaakaar naa ñu bari ràññee nañ ko. xam xam nañ ko waaw ñu bari ràññee nañ ko xam nañ ko te taxawaay bi ci lu jiitu lu jiitu lii. waaw mm, nit koo xam ne yëg goo xam ne loo nekk. Mm. mu bëgg koo xam lu mu nekk it bëgg nga xam ko. loolu day na ci bokk. waaw loolu day na ci bokk. te sëñ Abdou Khoudoss daan wax naan ku mënut a judduwaat mënula am yeneen yi bokk daan te ca daan teg nag ne kon nag say boo nga fonk yi nga am waaw say boo nga fonk yi nga am moom nag loolu moom mi ngi koy dund yàlla nañ ko ànd dund moom te yàlla fekk loon ko déwén yu bare bare suñ xool daal sedd na bu baax waaw mat na tubaarkàlla matale na jërëjëf gannaaw bi fi sëñ bi bàyyi ko sëñ Aïdara dafa jël ma ma féetanu fépp nag waaw waaw féetanu fépp nag waaw waaw waaw waaw kay mi ngi fi ba tey lettre baa ngi fi ba tey waaw waaw tubaarkàlla gën a jàppale rek a te yàlla dëgërale kër borom daaru ci nun yàlla dëgërale yoonu Serigne Touba ci nun yàlla dëgërale lislaam ci nun kenn ku ne la la jege moom sañ nga koo sàmm te toppatoo ko lu lu yaatu la sori nag mm-hmm. ak ku ca jotiwuti moom li nga moom moom nga defal ko ba mu jege sa jëmmi bopp jeeg li la jege moom kenn ku sañ nga ci xëye ko gont ba mu nekk ab royukaay waaw yàlla ñoom ñoo ànd fu dara nekk fu dara nekk ñoo ko fa def fu dara nekk ñoo ko fa def jàmbaar loolu wax dëgg yàlla ku ñaanal sëriñ bi ñaanal na leen waaye yéen it ngeen ñaanal sëriñ bi nii sëñ Abdou Khoudous daan wax ci sëñ a daaw balla rek mm-hmm. nañ koy ñaanal ndax nit taalibe soxlaa ñaanuk sëriñ nii la sëriñ bi soxlaa ñaanuk taalibe loolu la ko daal ci Moussa julli ba noppi ci jàkka ji mm-hmm. daana wax loolu mooy wéy ba léegi lii moom rafet na neex na waaye li ko lal li ko lal moo gën a tee am solo pas-pas bi ko lal ba ba def lool nit ki li koy li koy yëngal ba tax mu def loolu moo gën a tee am solo waaw yàlla a sax waaw su ko na bu baax a baax sàmm ko aar ko ci sàmmaale njaboot bi yëpp waaw ñu ngi fàttali baax koy door ko la suñu na bu baax a baax yàlla ñu fekk yu bare bare sant nañ leen bu baax yéen itam a ngi koy dundal la leen joxoon a ngi koy dundal آمين في الآخرة حسنة وخير حسنة النار فتح وبشر المؤمنين آمين إن ينصركم الله فلا آمين سلام للكريم ما تحصل سلام يا سيد عصر كل ما يسر وتيسر رزاك عبدك خديم عبدك متجن يا تهو يا رزاق يا ملك لك توهب وسلم بكل بنا وخينا وكلنا وحملنا في الكتاب من ربنا صليا على النبي وسلم وقضي حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين sant lay doon ak di la ñaanal rek waaw kàddu sëriñ bi daal sant lay doon ak di la nga yàgg lool ci sunu kanam waaw sunu sunu ndax euh, kilifa gum mel na yow ci jamono ji ñu toll kun ko jox sant rek doo dégg fenn ñu ne la moo fa wax walla moo fa dem kon nag loolu dañu dañ koy sagoo ñun njabootu sëriñ bi waaw am ab sag la ci ñun ci ñun waaw ba tax na daal Eh, ñu ngi lay ñaanal bu baax baax nga yagg fi waaw ñun njab njab njabot gi yépp dal eh, ñu ngi ñaan rek nga yagg fi bu baax a baax baax barke sëriñ Tuubaa waaw li nak mom day day day day lu war ci sëriñ bi waaw mom eh, day day lu war ci sëriñ bi ñaan gi ngi koy ñaanal tim sak année day day day ak yokut rek la ci gis waaw ak yokut rek la ci gis waaw di ñaan nga ñaanal ko bokk yi mu andal ci liggey bi ñoom suñu borom gëna yok sen seen seen seen seen seen seen seen ban gën di man di def waxtu wu nekk lu lu romb lii. waaw am am nañ yéene ji loolu ñoom waaw xaj na jamono bii nu nekk moo xaw a jafe. waaye waaye teewut ja jaayante jaayante nan luñ am ak luñ amut. ba lan doon lan defoon daaw ren jii def nan lu ko lu ko lu ko ëpp. waaw loolu nag xam na ne ci jamono jii ñu toll. Ah, lu lu waay def rek la ko may. akuk bëgg. waaye du man man waaw loolu nag. moom la ñuy ñaan Mbàkke nga ñaanal ko bokk yi ban jekk ko ëddee di ko mën di joxe waaw ngir euh, jëm jëmmi sëriñ bi waaw daal loolu moo doonoon kàddu yu Mbàkke jërëjëf jërëjëf Mbàkke jërëjëf. ñu demal ngeen nuyool ma ko xamal ko ne nañ ci yonent bi daa na rek liñ naan mm, fa nga fa nga fore woon ab doom nga delloowaat fa sa loxo wala boog daa mel ne bàtt bi daa delluwaat ca ndaala at yi yëpp nii la koy def te it wax dëgg yàlla lu ma ko waxoon rek mënoon am na ñoo xam ne ñoo ko gën a jege ñoo xam ne xëy na mënoon na leen koo jox ndax daanaka kër gi lépp lenn la njaboot gi moom la dale ca bopp ba ba ci cat la mhm. kum ci defal dara rek daa mel ne man la ko defal mhm. Mhm. ndax loolu man la waroon daa mel ne cant googu nga waxit ne noo ngi lay sant ndax déggunu la ci leen loolu alhamdulilah yéen itam noona rek yéen ci man rek ma nekk ci yéen ndax kenn néeguma saraka ngi fii ñëwal jël ko te bu ngeen meloon neneen nit dañ may wax ne ma ñëwal ngeen jël ko ndax mënuloo tàggale ko lu metti metti rek mënunoo tàggali ko dëgg la dëgg la mbak noo bokk sëñ daam dëgg la mbak mm, li faral di wax nag liñ ñu mën a sikkee moom mooy dañoo naqari dara rek <laughs> waaye beneen sikk moom amuñu ko amuñu ko mm. ak njàmbur moom mm. ku koy wut boo ñëwee ci nun doyal ak gore it ku koy wut ci nun doyal jaamu yàlla moom waxaale wu ma ñin maasel moom ku ci ndax moom lu ma leer la moom <laughs> kon nag su ngeen demee ni ngeen ma ko santal bu baax ne ko sëñ bi nee na ngi lay sant te xam naa ne bu amoon lu ëpp luy jox ma ko dëgg la loolu moom leer na ma moom dëgg la dëgg la sama kàddu it xam naa déggagu ko mhm. te te jëfu ca lam ci war a jëf dëgg la dëgg man nag noonu la ma yàlla bindee man damaa bëriwul lu may tegee jërëjëf ndax man damaa yomba doylu man fi mu ne bu mhm. su biir bi defee dara lu ma mën a toogee ba jaamu yàlla rek damay defe ne jeexalatuma dara man kon nag moom comme yàlla dogal na lii muy wërsëgu ko yàlla jox mu yéene ko rek mu ngi mel ne tey sëñ daam la ko jox. waaw dëgg dëgg amul amul amul ab ràññaloo ci diggante bi. ndax dañoo wax ne ku fi sa taw baay nekk. la ko war a defal defaloo ko ko. dañoo wax ne boo gisoon sa baay doo ko defal. te jamonoy léegi ji moom léegi def lu baax dafa yombatul. ndax ndax danoo ànd ak seytaane. bonu nu sax way setan mo ngi yakal mm-hmm. deug la deug la dañ ko jege lol lol lol lol deug la kon nak yalla mi musle yalla nañu ci yalla musal amin amin amin sorel nu ko ba lepp lo xamne war nañ ko meuna def ci lu bax mu war nu rek nu diko def ngeen demal ne leen ko man fi ma nek mom la fi nekkal jërëjëf jërëjëf Mbacke njabootug sëñ daam gépp laa fi nekkal jërëjëf mbak jërëjëf ragaluma mm-hmm. xama diwuma jërëjëf ñakum ak jot mm-hmm. waye dama am lo xamne seigne bi dañu ko bayil te dara waru ci sik ndax sëñ daam mhm. li mu fi nekk lépp mhm. kenn mësu koo déggal dara mhm. soo ko gisee sax te waxuñu la ko sax da nga naan borom daru jur ko dëkk ba mën nañ ko ko seereel tak njàmbaaram dong moo moo moo ko yóbbee woon loolu tey liñ ko xeeb xeeb xeeb bari na lu mu fi lu mu fi lu mu fi junjoon wala lu mu fi doon wax tey jii ñëpp te nañ ci seen bët ba mu koy wax ci jamono bi dañ doon wax naan daa wérati ñi ko jege woon te loolu ay bokk ma ko doon wax ndax fi wax na fi ay mbir yoo xam ne mhm. ñëpp teg nañ ci seen mhm. waaye booy wax lu jëm ci sa waajur nag mhm. day mel ne da ngay sàkku ak yëkkatiku wala nga bëgg ku la xam yëf yi doxewul noonu yàlla nu fi indi par benn benn te noonu la ñu yóbboo par benn benn ba nu jeex kon lu ci nit def wala mu di ko wax rek war naa xalaat bis ba nga xam ne ca ko suñu borom di yóbboo te luy ñëw la mënuñu mënuñoo muus ba ba mu ci ci kon na yàlla nañu yàlla fekk ci lu baax amiin amiin suñuy jël si yàlla nañu fekk ci lim nu war a fekk yàlla nañu yàlla dimbale itam ni nu war a jëflantee ci suñu biir liñ ci mënut itam yàlla dimbali nu ba nu man ko yàlla mën na ko te dara tawu ko nen mm-hmm. dana ne ko mm-hmm. ñoo ngi ñaan mm-hmm. ren yàlla na nu dàqal déwén nii ngeen fi ñëwee yéen ñi itam noonu ngeen fi ñëwee woon daaw ak daaw jéeg yàlla sunu borom def nu ñëwaat fi déwén kenn ku ne buy ñëw mu ànd ku man ndax yàlla moom telewul dara te dara am xatut yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wax ji nag xam naa mënoon naa gën a gudd loolu wala mu gën a neex loolu waaye man moom wax dama ko mënut te it wax dañoo waxal ne dañoo wax ne boo ko dee wutal ak buum a nga ciy tarxiis man nag sama wax damay bëgg mu amut buum ma yam ci li ma war a wax yam ci liñ ma wax loo yam ci fi ma ko war a waxe xam ne moom du ma ci am benn tarxiis loolu lay ragal moo tax du ma nangoo dugg ci yenn nu mu tuddati waaye lu ci manqué itam su ngeen demee ngeen jotti leen ma ko yéen ne ñoo yéen la yónni jërë ngeen jëf ci sax bu baax jërëjëf jërë ngeen jëf waaw amiin amiin amiin yaa rabbal amiin amiin آمين آمين يا رب آمين آمين آمين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما سبب الحق بالحق هدي إلا سيدك المستقيم على أمل الحق آمين يا رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين jërëjëf Mbacke jërëjëf ok Mbacke jërëjëf Mbacke. ak wér la ñu kenn tal ko yàgg lool ci seen kanam. amiin seen Touba. amiin amiin yaa bàyyam tàmbali woon lépp mi ngi koy àggale. jàppale bu baax. ay bàyyam sant nañ koy bàjjale. amiin Mbacke yàlla may leen gën. amiin amiin Mbacke ak xiiwal bu ngeen koy. amiin amiin Mbacke amiin yaa ñu ngi tuub bu baax Mbacke. moom la ko santal bu baax. jërëjëf sant nañ ko bu baax. ñu ngi koy gërëm itam. ah moo ñaanal boppam. ndax ki nga xam ne moo tax mu di ko joxe. am na pay. bu ko waay lebal dana la ko fay. waaw. la ma waxoon ne yomal xëyam taalibe yëpp maa leen di fay. maa leen di añal. du seen sëriñ nag. waaye maay seen jëwriñ te man la sëriñ Tuubaa di joxañ bi. kooku nag ku ca bokk. wala nga yaakaar fa sa xel mën naa dal xelam mën naa dal bu baax ndax li ko taalibe yi jox denc denc ko wutiwu ko lenn da ko dellu si sëriñ bi bi rek la ko delloo si waaw te man cee bañ a fekk ndax da cee bokk te kenn ko ci ab cër ndax man de maag lañ joxeendoo waaye sëriñ bi sëñ Matar Diop bi mu joxoon sëñ da ko soo fexee ba daa mokkal loo bëgg ma defal la ko lii la ko wax sëñ Matar Diop nee na man ñëw na fii ne sëñ Moda Balla damaa bëgg lu ma béy rek jox ko da jox ko daam te mu dellu si ba ba te mu dellu si man ba bindu kaamil moo leen nag mën naa dal la xelam ba tey mm-hmm. ne ko daal ñu koy ñaanal mm-hmm. ci barkeem sëñ Ibrahima Fati mhm. li mu bëgg yàlla defal ko noo ngi koy ñaanalit mhm. taalibe yi ànd ak moom mhm. lu ñuy wut yàlla na leen jàppale te bañ a am benn gàllankoor ne ko nag yoon waa ngu rek kooku rek ku bokk ci ceen daal fu mu ko gisee na jàpp ne li muy wut ci la ne su ko defee rek li mu bëgg dana ko am mu ñu ngi sant ñëpp di ko gërëm di ko sant bu baax a baax jën jëf yi jënd jëf rek doyoon na ci waaw te jëf na ba tàyyi waaye nag bu mu tekki laxasaayam bu mhm. mu sonn bu mu tayyi waaw ndax euh, sa borom daal daan ak sëñ Matar Samba mhm. sëñ Tuubaa ne ko sant naa la gërëm naa la yàlla sant na la gërëm na la mhm. bi mu génnee sëñ Matar ne ko xanaa bu ñu demee mën na noo nopp mun na ko déet moom moomu yàlla gërëm na ko ba tey te taxul mu nopp la <laughs> taxagul mu wàcc loolu la ko waaye moom it bu mu tayyi bu mu daj waaw lépp dana ñëw li mu ci bëgg lépp dana ko am te yàlla na ànd ak tal te yàlla jàppale ko bu baax te jàppale taalibe yi te yokk seen wërsëg ci li ñuy joxe amiin yàgg da koo def. ba muy nekkee boobu la ma ko la ma yàlla booy woon moom. dana mos a ñaaw. daañu ci xale yi may bu ñëwee sëñ daam rahmatulah lii na ko demal te soxla kunta boo dee nga jàppale ko ci daara ja. mu jàngal xale yi loolu yàgg na waaye fàttiwu ko nag waaw fàttiwu ko xam na ne ñoo bokk baay sëñ ko sa tam ñoo bokk baay moom moom ñoo bokk lépp lu mu soxla sëñ ko sa mu soxla moom moom lay woo. moo koy taxawal lépp mbàkk bi ñu ko bàyyi de karab bi karab bi muy sëyi daa bàyyi ko ngumba ñëw léemu ko waaw man mii tam sëñ Fall mais doom ji sëñ uma xeer laa ko sédde moo ko wàcce moo ne tuddoon ma seex bee sa uma xeer la tudd dayam di ko tuddee waaw mu bëgg ba lool nag waaw kon loolu su lu ma xewle karab ba may bi jili mi amee ngente ca kër si Abdou Karim moom mi mu jóge fii mel ni moom moom nag wax yàlla jàppal na ma nag xam naa moom bu doon moom moom dana metti man waaye nag waaw sax na yàlla baax nag waaw ndax moom macha allah mën na ma lépp waaw na ma càmmiñ mën na ma rak na ma borom kër ndax suñ ko sala bokkal baay waaw kon sant naa baax sant ko di ko ñaan nag yàlla may ko fan gudd waaw ak ku wér lépp lum naal yàlla na àgg waajuram soxna Joor Njaay moom <laughs> soo ko yaa joor bi na bu wax joor so sam laa ma ne ko ah déet waajur nga ndax sañ daam waaw kon yéen tamit yàlla ngeen Eh, indi te yàlla may ngeen ak weer ak yokku barke sëñ Tuubaa ak borom Daaru Muxti santan ma ko baax a baax jërëjëf waaw ah,